waa àdduna maa ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax di leen jàlle di leen mastawu bu baax a baax mën la Adji Raby di ñaanal yi nga xamante ne am nañ ay gaañu gaañu ci événement yi nga xamante ne moo passé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 ma na ko tonton lan nga buggoon mu ne ma massage laa bëggoon mu waxaat ko massage ban massage parce que fii nii lii lañ lii lañ fi am tonifiant lañ fi am savonnage 4 mai neuromassage body body ak euh, jacuzzi mu ne ma defal ma tonifiant parce que dama yàkkamti mën na ko kon tonifiant de vingt 000 francs la mu ne ma waa d'accord ci la ma jox 20 000 francs bi man dem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 loolu mu ngi nekkoon 2020. ba mu defee lu mu def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma plainte tamit. kenn du la gëm te ñëpp dañuy wax ne complot la sur man à nag yow yaay fay yow laay après yow yaay fay les pots cassés te yaakaar naa ne doo jël risque seen waa kër xam ne ci massage nga nekkoon bañ lay dévierge mu def lu muy def daal di génn ma teg ci cinq jours parce que mënatuma woon toog foofu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 yow demal kooku ba mu demee après ma woo ma woo Fina mu ne ma ki nga ma yebbal fii de ñëw na mais yow koo mu booleel dama koy jël ndax xale bu baax nga xale bu yaru nga ma ne ko waa ñu toog ba deux jours xaw ma quatre jours mu woo ma ne ma sama fii bi dafa am jëkkër ndax mën nga dem mën nga ñëw fii nii remplacer ma ko ba mu ñëwaat ma ne ko remplacer mu ne ma ah waaye mu ne ma waaye de massage yi fi amoon yépp amatu fa parce que dañ doon def ay massage corps à dañ doon def massage deux pièces doon def lépp foofu noonu mu ne ma yooyu yëpp amatu fi massage corps à corps cuuñu amatu fi deux pièces amatu fi yenn yi fi amoon yëpp amatu fi léegi tonifiant la ñuy def relaxant savonnage ak jacuzzi mun na ko jacuzzi bi mu ngi am ba léegi ci jacuzzi bi des fois da ngay tase koo xamante ne lay làmbatu nekk ci biir jacuzzi bi def tuuti di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay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 si beneen cabine ba ne dafay maasewu mën ne ko dangay maasewu kon xaaral ma wool yeneen fii mu ne ma noonu yow yaa ma fi indi ndax xamoon naa ne yaa ngi fi mën ne ko nanga nga ko xamee mu ne dama fi doon romb gis ngay dugg si biir nga jóg si bunt bi ba dugg si si biir kër gi mën ne ko sa wax bi dee leerul dara kan moo la wax ne ñëwaat naa fi mun na ma déggal rek li ma la wax ne ma maase ma ma maase ko ba mu pare mu ne day def jacuzzi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

ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala da nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu ba pare ma ne ko non non xaw ma parce que bëgguma woon joxe détail ba mu ne ma kon jëlal pour fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko. Hmm. Mhm. mais def nañ ay prélèvement ci guddi gi.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

fii nga xamante ne mooy hôpital Grand Yoff. li ngay mhm. Ahmed mën naa wax ne mën naa wax ni sax ndey ak baay rek lañ bokkul te mën naa wax ne sax ñoo bokk ndey ak baay parce que lu mu mënti le taxaw na lu mu mënti metti metti na ko te lu mu mënti le taxaw na. Mhm. est-ce que wax